ñu ngi siyaare suñu bokki taalibe yëpp di siyaare kilifa yi nga xam ne ni ñoo teewee jataay bi sëñ Abibulahi mi nga xam ne mooy jiitu Touba ca kanam ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jaajëfal ci teewaay bu baax sëñ Abdoulahi Mbàkke mi sëñ Abibu mi nga xam ne mooy jëwriñ di liggéey bi ak alaaji sëñ Tàkkam Cheikh Modou Fadal ak président sëñ Abdou Fatah Gueye waaye di nuyu soxna Bintu Mbàkke mi sëñ Abibu ak mboolem soxna yëpp fu ñu mën a nekk di ñaanal bu baax Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko xam naa kaddu yi nii yëkkati dañ koy tàmbalee ci ci moom ndax ni mu baaxoo jëflante ci lislaam bépp waaye rawatina ci Touba ci kanam gi ci mbooleem mbir moo xam ne dañ ko dañ ko sumb rawatina ci commission bi nga xam ne mooy commission sociale bi nga xamee ne nekk na Cheikh Mamadou Bassir Cheikh Mamadou Mountakha liggéey bi tàmbali baaxoo woon at mu jot mu mu jaayantel boppam waaye jaayanteel juróom-ñeenti murit yoo xam ne nii am nañ yéene te seen kàttan may mayewu ko juróom-ñeenti murit saalix bi nga xamee ne doon na Serigne Touba Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha itam gis ngeen ne mi ngi def at mu jot juróom ak juróom ak ak moom muy téeméer waaye loolu rek doyoon na sëkk waaye taxul lépp lu ñuy yëngu rek moo cay njëkk moo cay man ci ni mu ko defee woon ci koor gi joxe woon ci téeméeri barigo yu dugub ak téeméeri bëri ceeb noonu la ko defewaat ci tabaski gi muy téeméeri bëri dugub ak téeméeri bëri ceeb ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko mu yàgg fi loolu téwér ko xam naa cant ga war ca moom dañ koy bàyyee kilifa yi li nga xam ne moo ñu dajale fii tey nag mooy li nga xam ne moo ñu fa baaxoo dajale buñ tolloo ci di waajal tabaski sama mu doon sunna soo xam ne nii dafa war ci képp koo xam ne nii ab jullit la asgor la te mën na ko mu am ci yoo xam ne dañ koo sopp ci bisu tabaski bokk na ca nag muy ay yëre yu yees ci ku ko man tabaski léppam sunna la wa man yarxabu an millati ibrahima ila man safia nafsa loolu moo waral nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi wax at mu jot bu dellusee ñi nga xam ne ni yàlla xaw na xaw na leen koo man loo ñu gestu seen bokk yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi te seen suñu borom def seen loxo jëru seen ginnaaw ndax li ma waxoon rek dëkk bi dëkkub sunna la wa daara sunnatin wa man jan bin bidax loolu la suñ booxoon waccal binaa iya binaa xilmi wa xamali bi sunnatin wa xilmi loolu noonu ma waral ci yëre yi nga xam ne nii moom lañ baaxoo laaj muy yëre yu yees yoo xam ne danañ ko mën a jottali suñ bokki taalibe yi bañ ko tàmbalee dañoo woowoon association te yi ci njiital Serigne bay Sarr ak association bi nga xam ne mooy CMD ci njiital Serigne bay Ndiaye ak association centre euh, Mbacké marché central ci njiital suñu xaarim sow ñoom nag jëloon nañ fi ay yére ñaari rull yu toll cinquante cinquante cinquante morceaux yenn yi ay bassin la yenn yi nekkoon ay super cent ñawoon nañ ñu lu toll 468 pièces yoo xam ne ni yére yi mi ngi tàmbalee zéro ba 15 ans gone gu amagul at ba keroog ngay am fukki at ak juróom ñawoon nañ ci yére yu góor yi tamit lu toll 669 yére yu góor. kon li nga xam ne moom la tailleur yi ñaw mi ngi toll ci 1137 ñawoon nañu junni yére ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne nii ay yére góor la ak yëre jigéen te lépp tamit yu yees la. li nga xam ne suñ bokki taalibe yi ñoo ko dajale muy ay yére yu yees yoo xam ne dañ koo ñaw ba noppi indi ko loolu lim bi xaw naa takk waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne moo fi dajale lépp li nga xam ne moom lañ am ci ay yére li nga xam ne moom lañ am ci ay yére yu góor yoo xam ne yére yu góor la ñu ñëw ko ba mu sotti mi ngi toll ci 2544 ñaari junni yére yu góor ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent li nga xam ne moom lañ am ci ay yére yu jigéen yu ñëw ba noppi mi ngi toll ci 19182 maanaam fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar li nga xam ne moom lañ am ci ay yére xale xale yu góor ak xale yu jigéen mu ngi toll ci 6 956 juróom benn junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn am nañ fi itam ay ay yeneen xeeti xeet yoo xam ne ni dafa jëm ci lu tolloog ay dàll lu tolloog 917 dàll juróom-ñeent juróom-ñeent téeméeri dàll ak fukk ak juróom-ñaar am nañ itam ci ay rido lu tolloog 132 téeméer ak fanweer ak ñaar am nañ itam ci ay écharpe muy col yi nga xam ne moom la ji suñ suñ bokk soxna yi tegoo lu toll ak fukk juróom benn am nañ ñetti serviette am nañ lu toll ci ay tiis yoo xam ne dañ ko ñëwagut am nañ ci lu toll ak 601 juróom benn téeméer ak benn ay dara muy dara bi nga xam dañ koy lal ci lal yi am nañ ci lu toll ak 80 juróom-ñett fukk ay takkaay tamit am nañ ko fi am nañ fi tamit lu toll ak 27 morceaux saabu ak benn parfum ak lu toll ci juróom fukki saak amee ak benn li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére ci bis bi may waxe démb ci guddi du tollook min wi liñ jotoon a am ci ay yére mi ngi toll ci vingt-huit mille six cent juróom ñaar ñaar fukki junni yére ak juróom-ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar mooy li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére yoo xam dañ koo ñaaw ba noppi bokkul nag ak yére yi nga xam ne ñëwagul yére yi ñëwagul moom am nañ ci lu tolloog juróom benn téeméer ak benn kon ñu ngi daanal foofu suñu kàddu li ci yi xam naa suñu bay si dana ko àggal maanaam commission sociale nag comme ni nga xamee Touba Ca Kanam noonu lay doxee Touba Ca Kanam li ko tax a jug mooy defar dëkk bi ak jàppale ñi dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi nag mooy làmp yi ngeen gis ak poste santé yi nga xam ne nii ñu ngi koy war a tijji suba sax incha allah am na ñetti poste santé yu war a tijji ñu ngi koy yëgalaale bokk taalibe yi ñu ngi koy jëlee ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj par weer bu nekk bu dee commission sociale nag li nga xam ne moom la ñuy jàppale nit ñi ab jaayante doon boo xam ne nii lu waaye man rek man ko cee dugal maanaam amul xeebuñu ñu lu tàmbalee ci dërëm ba ay milliards lu ci waaye indi rek ñu mën koo defal ci dëkkandoo yi waaw mbir mi moom ni ñu koy distribuer comme ni commission sociale baaxoo distribuer rek lu lépp lu muy séddale mooy xool ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñi nga xam ne ñoo ko gën a yayoo ñu dem jox leen ko loolu nag niñ ko waajalee niñ ko ni ko sëñ bi tuddee mu nekk nii ay mbuus ñu waajal ko mbuus bu nekk fi nekk nii def nañ ci fukki yére am na yére góor am na yére jigéen am na yére xale am na yére yëpp ngi ci biir ñu waajal ko muy fukki yére niñ ko baaxoo séddalee nag dañuy def dem ci quartier yi waajal nañ ay yoo xam ne dañuy tànn ci sancaan yi ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñu sarse def délégation benn bu ñu demee ba ca quartier ba oto yi tasaaroo dugg ci biir quartier bi ñuy jël pari mbuus fekk ndaw yi am Pastef yi nga xam ne ñoom lañu ñuy àndal liggéey bi la ñuy ñu dugg ci biir quartier bi jël ay mbuus waaxu ba ci kër laaj borom kër gi mu ne ko mi ngi nii ñu yëkkati mbuus gi teg ko ci loxoom moo xool na mu koy séddalee ak waa këram noonu lañ koy séddalee yére yi li muy bari bari bari yëpp nekkul nag ne dañoo woo nit ñi naan nañ ñëw ca sees ba wala nañ ñëw fi ci magasin bi jël si déedéet dañuy dem fekk nit ñi ci quartier yi di leen ko séddale noonu la ñuy ngeen def ba xam ñi ko yeeyoo waa niñ ko xamee ndax jamono ji nekk dañuy def ay visite de terrain ndax boo gisee lim bi nga xam ne sëñ bi tudd na ko ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci wàllu faj am ñoo xam ne dañuy ndimbal ci dëkkuwaay am ñoo xam ne ñu ngi sàkku ndimbal ci seen néeg yu seen am ñoo xam ne amuñu ay wanag déplacement yooyu nga xam ne jamono yu nekk commission sociale ak Touba ci kanam ñi ngi génn di dem di fekk nit ñi moo tax daanaka lenn lu ci nekk xam nañ fa mu gën a méttee donte kon xam euh, ñu bari yittewoo nañ ko waaye xam nañ fa nga xam ne ñu bari ñu ko gën a yittewoo fa lañ nekk foofu la ñuy sukkandiku ndax fu mu doon ci quartier yu wuute dem nañ fa lu ëpp fanweeri quartier ak juróom bu dee ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo wéradi dem nañ fa waaye ci ci benn mois bu rek laa laa wax ñi nga xam ne dañuy sàkku xadd dem nañ ci ñoom 18 quartier ñi nga xam ne dañuy sàkku ay ay ay wanag dem nañ ci ñoom fukki quartier ak ñaar yu bokkul te jamono ju nekk ñi ngi gën di dem ci quartier quartier yëpp la ñuy dugg ya gën a sori ba ci gën a jege moo tax moom ñi ko gën a yittewoo moom commission sociale xam na leen bu baax a baax bu ko defee nag kon ñi ngi li jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi rawatina nag suñu mbokki téer yi suñu mbokki téer yi ak diaspora bi suñu mbokki téer bi ak diaspora yi ak waa presse bi nga xam ne tamit fu liggéey bi ak yéen ko fa àggale ngi jot communication ba nit ñi yëg ne liggéey bi xam tamit tolluwaay bi waaye di taxaw fu ngeen toll di wane fi nga xam ne li ñuy liggéey fa lañ koy dugal ndax dañoo wax laaj luñ am def ko fuñ xam waaye xamle gi moom yéen waa presse bi la yéen xamal nit ñi li nga xam ne ñi ngeen koy jox fañ koy dugal kon ñi ngi leen di sant waaye di sant suñu mbokki soxna bu baax a baax a baax a baax bàyyi wuñ kenn waaye ñu ngi santaat borom kër gi ak di santaat borom kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo muy sëñ Talla Fall nga xam ne bi magasin bi feesee démb ci guddi bagage yi ñëw amuñu fuñ dem biñ demee di wax waxi luyee dañu jox na ko sëñ Touba aal nañu ko nga xam ne fi ne bagage yu bari àggagu leen fa waaye ma fa ñu ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom yokk ko kattan téer yi nag xam naa jataay bi xat na moo tax mënuñu tudd ci lim waaye muy téer yi Touba ci njiital sëñ Mbaye Sarr muy téer yi Mbàkke ci ci kenn daal liggéey bi rafet na set na ndax defe nañ ko yéene ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah xam ne lun am dañ ko war bokk suñu bokk julli yi lun am dañ ko war bokk suñu bokk teel bi kon nag alhamdulilah maanaam ne yéeg-yéeg boobu bi ko waa Touba ci kanam amee ba taxawal lii ñu taxawal waaye alhamdulilah maanaam bi ko bokk teel bi yëpp amee ba tax restaurant bu ne jëlee nañ fa ba bitim réew nañ ay indi ko ci social bi kon ñooñu def loolu nañ xam ne seen jëf jooju yàlla mi tax ñu def ko ak jëmmi sëñ ak sëriñ Touba gis na ko yàlla na ko nangu te fay leen ci lu seen njort ci sëñ Touba dañ xam ne yoon waa ngoog dog nañ ko te buñ ko wàcc ndax joxe gi day tax am waaye du tax a ndax suñu borom moom lu mu daale mën na ko te te dana ko def ndax wax ne wax nit ñi ne danaa leen defal nangam te du ko def moom du ko ci fekk ndax moom moom lépp su ko da gëwu ko ci ne ko danaa leen ne def naa def nangam te moo ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu bu lu yeen joxe ngeen man dundale ko danaa leen wutalal loola te buy wutal lu gën waxu waxee waasi xii na mooy kon lu gën lay doon ndax ndax moom mooy ngeen ji koy wërsëgal kon buy wuutal la gën la fa nekkoon lay lay lay joxe kon liñ ci joxe rek na xam ne suñu borom danañu wuutalal lu ko gën fopp te ëpp ko kon buñ buñ tay ci joxe bi buñ yokk ci joxe bi nañ fa sééne lu ñu laaj nañ ci def lañ mën ngir jëm ngir yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa rawatina nag ku koy def ba noppi jaarale ko ci sëriñ bi ndax sëñ moom jëfam yàlla daa nangu lépp lu jaar ci moom suñu borom nangu lépp lu adressé sëñ bi rek jëpp jëf joo jëf sellal ko te adressé ko sëñ Tuubaa deesu ko seet sëñ Abdoulaye daan na ko misaal ci lettre boo bind président de la république nee na kenn fu mu àgg fexe mu gaaw jàll waaye kenn ñimewu ko tepp te eggul ci ji nee na jëf ju jóge ju yëm mi nga xam ne muy jiite communication waaye nag woo mbooleem ak sëñ Mbàkke sëñ mi nga xam ne moom mooy taxaw ci montage yi ak ñi ngi ko ak sëñ Cheikh Amar waaye nag di sant yi da waa presse bi wuy si bépp nga xam ne lu kanam di def danañ ñëw ànd ko ñu jël ko jàllale ko kon yéen ñi ngi leen sant bu baax di leen gën a tàllal loxo ci liggéey bi dina xam ne liggéey bi noo ko bokk liggéey sëñ Tuubaa kon lu ngeen mën ci yaatal ko ak jàpp ci ni ko def te kenn ku ne xam ne la nga cee def donte sa métier nga xam ne mën nga caa am yàlla am ci sëñ bi kon ñi ci sant baax di leen gërëm di leen ñaanal yal na yàlla bàkkee seen bu liggéey defal leen ci tawfeex ndimbal ba kenn ku ne la nga ci yéene nga am ko ci jërë